auzu billaahi mina seytaani rajiim président ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam ñu ngi nuyu nag ministre yi nga toogal yépp di nuyu sa cabinet yépp monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm di la sant ñun ñoo la war a gërëm waaye yow da ngaa yónnee ci kaase yëpp ku ci ne nga gërëme ko politique euh, euh, kii bi ñu jóge euh, voté bi ñun nag département de Mbour dañ lay gërëm njabootu Ousmane Tanor Dieng yëpp a ngi lay gërëm ndax voté bi ku ne gis na li nga ci dugal jàppale ñu gunge ñu ànd ak ñun tette ñu ba Ousmane di dund ba nëgër ni yaa ngi ñun kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant di gërëm nag président de la république lowaat sa place xam na ne mate nga ko man nga ko macha allah te it fi mu la yem loo yem nga fa te li nga war a liggéey yaa ngi koy liggéey xam nga sa place monsieur le ministre maa ngi jóge département de Mbour waaye nag am nga loo ci xam ñu bindoon la ci assainissement nga dugal ci sa loxo bu baax branchement sociaux yi ci biir Mbour ku ne xam na ne commencé nañ ko kër yu bari am na fu mel ni Daaru Salaam Guy Murit son Sonatel sëriñ Mbaye Thiam branchement sociaux yi dugg na foofu yónnee nga ñu bataaxal tam di ñu wax fu ñu toll ñu ngi koy liggéey bu baax ñu am tam suñu maire boo xam ne muy Cheikh Issa Sall DG ADM mu taxaw bu baax moom itam ci assainissement mbuur ku ne xam ne ren ni ndox mi mel ci Sénégal waaye mbuur dugal ngeen ci solo seen loxo ba jamono bu tawee rek. ndox mi dem kon def ngeen fa assainissement bu am solo ñu ngi lay gërëm di gërëm président de la république président de la république nag li mu def ci Sénégal ku ne xam na ko dëkk boo dem réew moo dem foo taxaw ku ne xam ne li mu def ci ndox ci Sénégal te ndox mooy nit boo jullee julli gi aw yoon sax ndox la ci yóbbu kon ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di gërëm président di ko sant di ñaan ci yàlla li nga xam ne bii moom ngeen sémb yàlla na ko yàlla yeggale ba yeggalee leen yeneen yu ngeen sémbul woon ñu ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. Je vous remercie, chers